Hiroshima ak Nagasaki bombe bi est xam nga ni du américains yi ñoo jëkk njëkkee woon xeex bi mhm. japonais yi ñoo ñu fekk ñëw bombardé ñu rey suñu ay deux mille personnes fii suñu base militaire mhm, pour la mort jël fi ay ay militaire am dem bombardé Nagasaki ak ak ak Hiroshima mhm. te japonais yi japonais yi abdiqué bi ñu abdiqué mais l'empereur bi nga xam ne ki moom moo yónnee woon pour ñu ñëw rey américain yi fii yow xam nga ne américain deretam mooy ku ma xotti mu xuri la mhm. américain boo ko tuflee mu takk sa bopp dëgg la loolu mooy tête nature mhm. mais bi ñu demee ba foofu ba ba ba Japon appliqué empereur boobu le général MacArthur mhm. bi nga xam ne ki moom la ñu woon foofu dañu gouvernement américain bi dañ ko ne par A ou par B nga jàpp l'empereur euh, Nakito le tudd je sais pas encore Nakito ou comme ça. le mhm. l'empereur. parce que empereur boobu moom moo doon gérer Japon euh, même seen constitution bi sax way wax da ngay jëkk tudd turi empereur boobu. Mhm. mais le général le général MacArthur mu tontu gouvernement américain bi mu ne len maa lànk duma ko jàpp. Mhm. lan moo tax mu ne maa lank du ma ko jàpp ñu ne ko gouvernement américain bi ne ko dañ lay destituer yooyu soo ko deful mhm. parce que dafa rey ay américain mhm. dañ ko war a jàpp mu ne leen maa lànk duñ ko jàpp du ma ko jàpp mais ci gis na ci général ci ci ci nak too boobu empereur boobu la général bi et changé constitution Japon constitution toog fa cinq ans la fa américain yi toog changer constitution japonais bi def ko lépp lu ñu leen lu ñu bëgg comme démocratie loolu moo tax Japon am démocratie ba tey loolu moo tax Japon nekk premier alli allié Amérique ba léegi ba nga xam ne même Chine bi gën a jege Japon sax mënul xaj diggante Amérique ak Japon. Mm-hmm. te gis nañ ñaata nit a dee seen diggante. moo tax léeg-léeg décision boo koy jël. se le réalisme nga koy nga koy jëlee. Mhm. par le réalisme. ak mhm. par doole. Mhm. parce que gouvernement américain bi ñoom nekkuñu fa woon pour xam naka la général Arthur war woon def te indi stabilité ci dëkk boobu. mais dañu doon imposer doole mu ne leen maa lank ma ko def mais par la suite ci la ñu comprendre lan moo tax général Arthur mag Arthur bañ a jël décision yooyu jàpp parce que bu jàppoon ant euh, empereur bi. japonais yi dañ ko defoon comme yàlla. Mhm. yaa ngi dégg. kon mhm. Amérique du mos a d'accord ak Japon ba tey ilaa yow mi di ñu jàpp. wala ñu rey ko buñ ko reyoon kooku dafay doon kenn mit lay doon mit lay doon xam nga mais dañu MacArthur daf ko fa bàyyi mu muy négocier ak moom di négocier ak moom di ko négocier te di koy yóbbu ci ay meeting yoo xam ne ci japonais yëpp dañ ko daan taxaw mu ñëw taxaw ak. Ah, euh, kii bi nu mu tudd empereur bi. Mhm. di def ay discours. te mhm. noonu la changé constitution bi. dégg Japon am jàmm Amérique am jàmm. Mhm. léeg-léeg ay décision du jóge ci doole. moo tax ma ne c'est pas par faiblesse la état bi dellu ginnaaw c'est par réalisme parce que ou Sonko tey i quatre-vingt pour cent des Sénégalais ñoom ñoo ko bëgg. Macky Sall dina réaliste lu forcé. Mhm. parce que c'est lui qui a à perdre c'est pas Ousmane Sonko. Mhm. Ousmane Sonko ay 48 ans la am. Macky Sall moom jeexal na. am na leneen lu koy xaar ci adduna bi lu dul chef d'état Ousmane Sonko am na vingt cinq ans yoo xam ne ki mën na ko xeexaat pour jotaat réew mi. Mhm. moom Macky Sall nag quatre vingt pour amatul légitimité moom xam na ko. Sénégalais quatre vingt pour cent seen xol Ousmane Sonko lañ ko jox. surtout la jeunesse. léegi moom lan moom lan moom mooy réalisme moo nekk bu indi Ousmane Sonko xëcc ko waxtaan ak moom ubbil ko même moom du ko fal sénégalais yi ñooy fal. Mhm. mais mu teg dëkk bi ci yoon. créer euh, euh, régler ay élection yu transparent mais waxtaan bi est-ce que gaañu duñu ko jàppee est-ce gaañu duñu ko jàppee deal. est-ce que duñ ko mais mais buñ ko jàppee c'est lui qui a à perdre. Mhm. parce que loolu nag nous n'avons rien à perdre. non non plutôt dama ne damay wax ne Ousmane Sonko bu demoon toog ak Macky Sall di waxtaan est-ce que gaañu duñ ne day diil ak Macky Sall. non non non non ça c'est du réalisme politique. Mhm. parce que politique du xeex rek. Mhm. politique man maa la gën a bëgg xeex. mais gis nga politique xeex la ak négociation. amul benn réew ci adduna bi boo xam ne da ngeen di continuer di xeex ba ilaa abadan. da ngeen di xeex ba ku ci nekk xam sa doole moroom fu mu toll ngeen ñëw ci table bi ngeen discuter. ku ci mhm. nekk am loo jël ku ci nekk am loo bàyyi. loolu moom mooy politique loolu mooy réalisme politique. Mhm. loolu la Ousmane Sonko war a def tey. xam nga parce que man j'ai appuyé Ousmane Sonko waruloon euh, back down devant Macky Sall. Mhm. xam nga muy sukk devant Macky Sall jamais. Mhm. man je j'ai apprécié ton courage. Mhm. parce que nee naa ne kii mën nga maa jiite. parce que man ku may jiite il faut nga am fit. ku may jiite il faut nga am fit. man munoo maa jiite ba pare nekk mbu mbuqat. li mu def nii nag loolu la waroon def xeex ak moom ba mu saf saf ba Macky xam ne ki doole bi moom yoru ko. borom bi subhaanahu wa taala rek moom moo yor doole. yaa ngi dégg mu ñëw sur la table ñu discuter. s'il mhm. veut une sortie honorable ñu génne ko avec un sortie honorable s'il mhm. veut nag cacher ses mains mu continuer cacher ses mains avec du sang mu di di bi muy xëccoog jeunesse bi mhm. parce que gis nga jeunesse u kenn du xëccoog moom te ngor ay jeunes ñoo ko tegoon ci pouvoir bi Abdoulaye Wade ay jeunes a ko tegoon ci pouvoir bi te gis nga Ousmane Sonko mi tamit ay jeunes yoo koy teg ci pouvoir bi. Mhm. bu bu vingt ans dix ans quinze ans keneen tamit ay jeunes ñoo ko fay teg. Mhm. loolu il faut ñu nangu ko ci adduna adduna bi noonu lay doxee. Mhm. beneen bi Macky Sall bu mu déglu ñu mel ni que ay majabal Diagne yooyu. ñooñu ce sont des mercenaires de la plume. xam nga ñooñu alal la ñuy ut. ñooñu uti ñu dëkk. xam nga ñu mel ni ñoom ak ñeneen ak ñeneen ñu nekk Sénégal. am na ci ay hommes d'affaires. am na ci ay marab. am na ci ceci am na ci cela benn mafia bu boo xam ne ki la di ñuy wax fii ñun Amérique tey state dafa yàq ci Sénégal. Mhm. depuis mille neuf cent soixante. Mhm. ñoom ñoo téye dëkk bi doo leen gis nag ñuy feeñ ci kaw de mais ñoom ñoo nekk ci suufa suufa suuf. deep state bi. ñoom ñooy fas ñoom ñooy noot ñoom ñooy nocci ñoom ñooy fas. Mhm. ñooñu nag tant que Macky Sall jëlul courage am. taqale ko ñoom bu moytul dina am benn issue boo xam ne kii. justice bu malheureuse boo xam ne kii moom vraiment li ko yàlla defal il ne mérite pas cela. mais commentaire par rapport ak livre bi nga xamante ne moom la Madiambal Diagne di génne est-ce que lii yàqul bësu livre bi comme tey kenn wax kenn amul temps waxtaanee boobu les livres. non dama la ne Ousmane Sonko dafa am paawa bu ko yàlla may boo xam ne kii. Mhm. ñun Sénégal sax ñun ñoo ko xamul. Mm-hmm. xam nga booy booy boy booy tukki ci adduna bi. Mm-hmm. ngay jàng leadership kan mooy leadership. nga mm-hmm. xool leadership yi développé seen réew. da ngay xool ci adduna bi ñu développé seen réew leadership boobu loolu la yàlla may Ousmane Sonko. leadership bu mel ni ki docteur Mahathir. leadership bu mel ni ki Lee Kuan Yew. leadership bu mar ni ki général Park. du genre yu mel noonu. moom la Ousmane Sonko doon amoon nañ ko ci Afrique ñoom Cheikh Anta Diop. Mhm. ñoom Mamadou Dia. Mhm. et cetera et cetera ñu sàkkal leen ay pexe. te mhm. yàlla daf ñu indil keneen ku ku koo xam ne ki ñun ak moom neexoon nañu dañu am relatif boo xam ne ki suñu génération la. mën na changer mën na changer parce que gis nga réew. ci ko moo koy changer. alal réew ci ko moo koy du alal. parce que réew xoolal Afrique. ñaata réew ñoo fa am gaz ak pétrole yu ëpp yu lu Sénégal am. Mhm. est-ce que réew yu changé nañu. Mhm. changé wuñu am na réew yu bari ci adduna bi boo demee tamit South America South America yow boo xam ni ki fii Amérique Amérique latine am nañu gaz bu dul jeex ak pétrole bu dul jeex richesse est-ce que seen dëkk yi na changé wul. Mhm. loolu leadership moo koy changé leader boo xam ne ki dafa am jikko bu rafet yàlla moo ko defar dëkk mhm. ko ci moom du loo mhm. xam ne dañ koy jàng sax ci école merci yàlla moo koy tëkk ci moom mhm. donc fi may daanelee moo nekk li may wax sénégalais moo nekk su Ousmane Sonko mi insha allahu rabbi nañ ko jàppale nañ ko jàppale buñ ko jàppalee ñun dinañu gis suñu njëriñ ci Sénégal te kenn du ñàkk kenn du mer kenn du ñàkk kenn du mer parce que approprier réew mi di ko jox ay di di ay xaritam wala ay mbokkam wala ay ay partem ñu koy seetoo du ko du ko def mhm. Ousmane Sonko c'est un homme de principe et de valeur mhm. mais keneen kuñ ko fi jox ay billahi wallahi tallahi dinañu delloo ñun ci tubaab yi la ñuy delloo mhm. te Ousmane Sonko ñeme na taxaw ak tubaab yi ne leen dama soxla sama souveraineté c'est un vrai patriote dafa am patriotisme yaa ngi dégg et nga am patriotisme économique pour nga pour nga pour nga tabax ko. Mhm. gis nga ñun Amérique fii. Mhm. Amérique first la ñuy wax. boo demee France France first la ñuy wax nga dem Germany ñu ne Germany first nga dem Japan ñu ne Japan first nga dem South Korea ñu ne South Korea first waaye na ñun Sénégal du ñu wax Sénégal first waaye na xoolal tey boo demee Saly ban barke alquraanu karim démb waaye sama yaram dafa taw laa lay wax nii. Mhm. dama am ay bagages foo mais ma dem ma gis laa wax ni ay tubaab lañ ko jaay ba mu jeex ay terrain mille cinq cent mètres euh, un hectare cinq cent deux hectares trois hectares u kër xoolal ñu ñëw tabax ci waa village bi nag ay village kër yoo xam ne ki sax sa yaram dafay daw est-ce que loolu normal na ci réew mhm. ñu bàyyi tubaab yi daw fële di jóge di ñëw jënd suñu suuf yëpp ñun dañuy dem ba nekk ay doxam ndéem léegi ci senegal mhm. amee xoolal Amérique New York ñu ngi génnee benn loi ça fait même pas un mois am dañ daan ñëw di jënd fii ay parc ay terrain laa lay wax New York. Mhm. di dem di pay pour pour pour pour pour kii agro agro business bi. dañu mhm. génnee benn mi ngi ci mi ngi kii bi bu ñu war a voté. Mhm. amul benn doxateem wala chinois boo xam ne ki permettre nañ ko mu ñëw fii di jënd terrain léegi. loi boobu dina jàll d'ici trois mois. yaa ngi dégg. réew njiit dañu war a am boo demee Moyen-Orient la même chose amul benn tubaab alal koo mënte am munoo faa jënd suuf si seen réew yooyu. Mhm. munoo faa jënd suuf. donc lu tax ñun ñu permettre Macky Sall ak ñi mu àndal ñu séddoo suufu Sénégal bi li ci des ñu jaay ko tubaab yi lan moo tax ñun suñuy doomi doom les futures génération di ñëw dans cinquante ans ñuy ñëw fan la ñuy dëkk ah ana richesse fan la ñuy am ci suuf. suuf mooy richesse bi nga xam ne ki moo gën a garanti sax or laa lay wax nii. Mhm. suuf a gën a garanti or lan moo tax ñun ñuy jël suñu suuf si di ko jaay tubaab yi. Mhm. ah ay cinquante millions mooy lan ah boo ko bàyyee fii dans dix ans mu jar cinq cent millions. wala mhm. trois cent millions. suñu doom yi ñu leen di ñu ñuy bàyyi tubaab yi di jënd suuf si yëpp. loolu yëpp nag il faut ñu indi ku mel ni ko Ousmane Sonko. indi ay régulation waxuma kenn du jënd de mais dañ koy réguler. ñu réguler ko. Mhm. lan moo tax ñu ñëw ñu bàyyi leen ñëw ci benn quartier jënd fa deux hectares. Mhm. yow rek benn nit deux hectares ci benn quartier. pourquoi. waaw ah, dëgg la de ko war a réguler dëgg la de. dañu war a réguler leen. dëgg la leen sant suuf si niñ koy jaayee jaaduwul de nañ ko wax te dee. dëgg la waaw suuf si moom niñ koy jaayee jaaduwul loolu xam naa dinañ ko def débat spécial sax. il la volonté politique il a le courage et il a le patriotisme. Mm-hmm. ñeme na ko. Mm-hmm. te loolu wóor na ma wóor yàlla ci dix ans yi ko def. Mm-hmm. réguler réew mi. xoolal ñu am nañu pétrole am nañu gaz. ah xoolal tey raffinerie bii nga xam ne tamit ñuy raffinerie. te moins de un million de. un million de ah, xaw xam ne ki mënuñu ko raffiner. ah lan moo tax tey Sénégal di am de deux mille vingt heure bi xoolal Dangote privé la de mais mi ngi tabaxal boppam une raffinerie boo xam ne kii moo ëpp ci Afrique Afrique laa lay wax nii walla wax daal bu ma sañee sax wax ci adduna bi te privé la ñun lan moo tax un état comme le Sénégal ñu am gaz ak pétrole léegi dañuy dem di di jël suñu gaz bi suñu pétrole bi di ko jaay brut. ba mm-hmm. pare ñu ñuy indil essence bi di ko jaay. Mm-hmm. pour lan loolu. Macky Sall xam na loolu yëpp parce que liggéey na Petrosen te mhm. il n'a pas le courage parce que tubaab yi ñoo nekk ki ginnaaw naan ko nii ngay doxalee nii ngay def ak nee ngay def mhm. Ousmane Sonko buñ ko fi indee nag il a le courage boo xam ne ci yi ñoo koy gérer parce que c'est pas difficile c'est pas chose difficile sénégalais yaa ngi ci adduna bi yëpp foo dem ay borom xam-xam ñu dem jëli leen ak ñu nekk foofu Sénégal ñu boole leen ñu tabax réew mi. ayca donc nañ leen teg Ousmane Sonko. ayca jërëjëf jërëjëf jërëjëf euh, ñu jël keneen euh, parfois li li lii lay wax parfois dina am ñi nga xamante ne. Euh, li ñuy wax dafa tellement intéressant ba vraiment tu peux permettre tu peux te permettre di leen dagg tu tu les laisses développer parce que li may wax am na ñi nga xamante ne feeñu ñu télé génnuñu seen kanam génnuñu waaye li ñu xam bu ñu ko euh, bu ñu leen bàyyee ñu wasaare ko vraiment njariñ lay doon ci euh, bépp doomu aadama boo xamante ne da ngay yeewoo ci ci ci ci bile gox am na sénégalais yi nga xamante ne feeñu ñu télé génn ñu rajote kenn déggu leen pourtant la ñu yor seen biir euh, bopp lépp xam-xam la. Mariama Sarr maa ngi dégg mu naan jëkkër jaa ngi foofu di commenter je pense Ibrahima Sow la tudd Ibrahima bienvenue dans la famille waaw Mariama moom dem na buub seen waa kër indi leen def leen. allo soppay 313 buy commenter jëkkër ji. allo di commenter Mara Sow maa ngi lay ziar allo. allo waaw Cheikh bi ziar naa la. ay ca yaa ngi si jàmm yow laay déglu. Xalifa Xalifa Babacar Sall lay wooteel bu neex bu neexee yàlla. Khalifa Babacar Sall ngay woteel. bu neexee yàlla. incha allah incha allah. waaw moom moom ñoom ñoom ñu ngi ci sondage bi. ñu ngi ci sondage sondage bi démb la passé na dimanche rek incha allah ñu sondage aat euh, moom xalifa lay woteel bii su bindal ko wala bii bokkut <laughs> bokkut. allo allo allo. allo oui. ça def waay. ci loo ne. Cheikh Ibrahima.